Salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum everybody BMJ that's don gang Lébu Ndoye sur Vibe TV ken bi may dugg si rap bi may bi may door a intéressé wu si rap côté côté Sénégal genre mun mun mun naa wax ni que aw fi woon préféré quoi mais dama doon déglu lépp li nga xamante ne gars ñu ko doon def fii nii constant constant lépp nga xam ne gars yi ñu ngi ko doon def fii nii man ay ay ay ay ay ay orientation yu bizarre la am man ay ay fucking cook laa doon déglu ay affaire yooyu noonu. mais doon naa déglu li nga xamante ne gars dañ ko doon def comprendre nga mais gars yi dañ ma neexoon parce que seen idéologie quoi genre jàpp si loo xamante ne ñëpp dañuy ne baaxul nga des wal ba léegi je dirais ne que déglu naa tamit machine gën këli lu bëri comme nu ma doon dégloo yeneen affaire yu kaana yi affaire yooyu noonu mais lu mu gënoon focus si MJK moo ëpp quoi loolu mooy def différence bi loolu mooy def différence bi ku nekk pour man am na am na am am na am na contribution boo war indi si game bi quoi waroo ñëw like def li nga xamante ne moom la ñëpp di def ñëpp mun nañ la ñëpp mën nañ lu gars yi di def quoi je dirais pas que ñëpp nañ ko sax mais ku nekk soo jéemee mën nga def li nga xamante ne kenn créé na ko ba pare di ko def en trois ans man je dirais ni que maa ngi taxale ba léegi maa ngi taxale ba léegi parce que bés bu ma bés bu ma taxaleetul damay toog ni ko voilà am doing this shit for real te parce que xam naa ne que xam naa ne que am naa doing this shit for real parce que je fais faire affaire de gauche à droite de gauche à droite like je suis pas focus sur une chose te gars yi dañuy nek di affaire bi bruit quoi tu vois so bu may bu may bu may que like affaire bu bi affaire day voilà Je ne duggé like ken dootuma présenté wala affaire j'ai un peu la tête sur les épaules di xaar affaire yi quoi suma défé son ak rek like easy wow c'est un peu naturel mais xam nga fii comme que rap la da am ñoo xamante ne yow ak ñoom yéen a sekk gem bi tu vois soo sooy wax benn affaire te gars yi duñ la bàyyi xel amul benn sens quoi pour man da war a def loo xamante ne nii suñ la déggee na nga ni waaw boy bi lu mu bëgg wax fii waaw ku muy waxal ku muy waxal en fait waxuma kenn gars yi ñoo gaadu seen seetu yi rek loo wax ñu gisi seen bopp mais voilà quoi like sama sama moo demee noonu gars yi ñu wax ni que c'est un peu narcissique mais sama style moo demee noonu sama choix de sama choix de vie la mais xaw ma sax loolu su ma koy def du ko sax ça vient naturellement je me dis ni que rap la après life la quoi. mon ak mon yi man mon rappeurs yi la man ak nit yi man ak it's different I don't know what to say about it mon daal xam naa ni def naa du ma nekk je me suis senti visé parce que si si la laa bokk def naa lu ma def après jeex na gisuma si dara gaw ma woon sax que gars dinañ ci wax wax yu bëri non je me suis juste dit que il a fallu que je réponde après je l'ai fait. Jana, I'm just doing my thing, my nigga. I'm coming for you. I'm coming for all them fucking rappers. Like, soon I hear someone on the I'm say Anjo, mais je vais riposter. Mais instant yii nii amul benn enjeu my nigga like ñi you? ñi nga waxanteel ñoom ñoo ñëw fekk la nga toog ñu dompet la ba pare nga geesu ne waaw nu mu demee noonu gars yi push so amul benn sens quoi amul benn sens dañ lay woo guerre ba pare daw dem seen yoon. te man sax pare woon naa si wax bi bu yàgg te wax naa ko like this is the last time I'm talking with loolu. to be honest man nekkuma si affaire yooyu noonu quoi like du ne nekkul loolu noonu moo tax may rek quoi nekk di di di dundal ay dundal ay affaire de ay affaire de bullshit wala ngay wala ngay wax wala man ak yow ñu déggoo nekk kaa ñu créé benn buzz affaire yooyu noonu non c'est du vrai that's some real out here. Danton gang Lébu Ndoye Yoff BMJ la from Reptile Music di wax gars yi yenen affaire mu ngi si yoon bi di ñëw ni ñu pare nañu dem ci YouTube bi nañu nañu nañu gars follow fep xam nga ñu supporter affaire yi voilà projet yaa ngi si yoon bi di ñëw gang gang. 102.3 le nouveau son.